27 milliards c'est deux phases c'est pourquoi man le président est au courant de ce qui se passe hier je l'ai entendu un mu wax ne il faut qu'on aille vers une relance du projet alors que projet jeex na depuis 2019 c'était deux phases les deux phases sont terminées sur sur sur 57 milliards 35 ak 22 mais xanaa loolu président mënu ko fi fàtte ba wax parle de relance. programme programme deux mille lay jeex te projet bi si biir programme. la la bokk waay mais xaaral waay nañu waxtaan bi projet bi su neexee président mu prolongé ko parce que dafa bokk si biir plan décennal bi. dafa bokk si biir plan bi maintenant maintenant ma waxal la ma ma ma ma waxal la gis nga inondation tant que ndox mu ngi am inondation dina am que muy au Sénégal muy en France muy aux États-Unis un peu partout dans le monde man mi lay wax ni 2009 dama dama bàyyi sama liggéey fi ma nekkoon en France ma ñëw au Sénégal dama wër presque biir Dakar bi yëpp parce que dama bëggoon a comprendre phénomène inondation yi au niveau de du Sénégal. ma def ma def ci ma def ci liggéey ma def ci benn liggéey boo xam ne ne. ay thèse yu bëri ñoo ko reprendre mu nekk au Canada nekk en France nekk un peu partout en Afrique ñu reprendre les travaux yi nga xam ne ne dama ko defoon ci Sénégal soo gisee soo jëlee dëkku Sénégal yi dëkku Sénégal yëpp ñoo dem installé wu ci wetu ndox te ku xam sunu pays africain yi déglu ma euh, parce que parce que man dama dama bëgg ñu ñu wax ah dama bëgg ñu wax ak aqu aqulaay taala ñu wax technique c'est la première fois c'est la première fois ñu toog presque pendant huit ans inondation yi sonaluñ ñu comme ni mu ñu doon sonalee auparavant maintenant nag euh, lii phénomène naturel la bu bu ñëw. yéen a wax ñaari phase yéen a wax il faut ngeen xam projet aussi lan la ne Naïcha Naïcha projet moom il def ne dañu nekk ci changement climatique mais bu fàtte ne projet eau pluviale la ak adaptation au changement climatique. ça veut dire si def donc. ça englobe les deux. ça englobe les aujourd'hui le président nous parle de changement climatique j'ai peur j'ai peur ça veut dire que donc moom amuñu dara ben politique bu ñu entreprendre pour que une fois qu'il y ait euh, euh, changement climatique ñu mën a jël ay dispositions. résilience climatique. donc loolu loolu loolu c'est quelque chose boo ma ci def mais xam nga la moo ñu rey c'est-à-dire ñii jàngee France ñëw immédiatement dans le pays aussi li ñu rey si la bokk. Parce que quand ils parlent de maîtrise du pays, ils ne maîtrisent pas pays. Ils ne qui se passe. C'est bien beau en France, étudier, avoir des diplômes, revenir dans notre pays et dire que... Man maa la gën a maîtriser le Sénégal un million de fois. waaye mais non non non xaaral xaaral tey. mu naan ñu inondation gëj na te daaw mu am avec le plan Orsec. il y a eu inondation l'année dernière daaw à Rufisque tu as des chevaux noyés tu as des gens ñuy teg ci kaw.